ñu bàyyi seen i tépp mhm. allo sax dañ koy wéer euh, di ñuy déglu ci 99 point 0 ñenn ñi sax euh, di ñuy topp ci page YouTube bu Walfadjri fu ñu munti nekk ci biir réew mi euh, ñu ngi leen nuyu bu baax a baax ak ci bitim réew. voilà ku ci mel ni oustaz Mafal Thiam moom daara la yore fële ca mhm. Mhm. ñu ngi leen nii bu baax a baax diaspora bi aussi fàttewu ñu leen Massa Ndiaye mi ngi ci page YouTube bi via Faye. Euh, Moustapha Sarr euh, ñu ngi leen di nuyu euh, bu baax a baax MD Diop info ñu ngi leen nuyu ñoom ñu ngi ci page YouTube bu Walfadjri tollu jamono ji ci 4000 et quelque personne ba si Assane Dieye di ñu di leen di leen nuy bu baax a baax ñu ngi ñuy bàyyi xel ci page YouTube bu Walfadjri de même que Bakary Sagna dañuy dem ba Gabon Pape Sané lan moo xew Gabon jamono ji. waaw maa ngi gis sax fii euh, Sénégal euh, ay manifestation euh, yi amoon ci buntu ambassade ba ba sax ñu dóor fa ay gaz la lacrymogène ñoom gabonais yi di làq ay tubaab yu neex sax. waaw gis nga ko <laughs> ñoom de seen dëkk daal kii nga xam ne mooy président ba fa nekkoon. dafa gum fa ñaari mandat yu juróom-ñaari at muy nekk fukki fukki at ñeent. balaa loolu kooku noonu papa ji def na fa lu ëpp 40 ans. Euh, soo ko boolee ñoom ñaar def nañ fa demi siècle euh, président boobu ñu koy woowee Ali Bongo amoon fi AVC bu garaaw a garaaw ba nga xam ne boo ko xoolee ci photo wala ci video yi sax danga naan lii Afrique rek la mën a am cest à président ba nga xam ne booy dox dañ lay téye booy euh, booy booy wax dañ lay téye looy def dañ lay jàpp alors que ni men malgré son état de santé jàpp nañ ni jàpp na ni moom ak ay ñooñam ne ko dafa war a nekk candidat mu nekk candidat Euh, dès les premières heures du scrutin de de samedi ñu gis fa benn mbir bu doy waar mooy comme niñ koy defee fii Sénégal. Euh, moo coupé internet daal di def couvre feu ñun nag àggaguñ ci couvre xam naa prochaine fois moom bu ñuy coupé internet rek dañ ciy boole couvre feu comme euh, daanaka ñun ci mauvais élèves yi rek na ñuy ràññ nañuy nañuy nañuy kii nañuy copier donc voilà situation boobu bi mu amee kii di opposant bi nga xam ne moo doon euh, candidat principal opposant am daal di ne moom euh, lii pour luubal élection yi te moom jàpp na ni que euh, moom moo gañ élection yi donc loolu nag moo jur problème Sénégal maanaam dañu gis dama jur problème Gabon dañu gis ni que comme lii xew Sénégal benn opposant bu ñu jàpp ni que moom rek mën a sonnal nguur gi. ñu koy bund xatal di ko toroxal di ko kii mais fële moom chance bi mooy Ali Bongo ñeme na moom. opposant am jàkkaarloog moom ñeme na ko ñeme na moom jàkkaarloog moom élection am na waaw cest à moom ñeme na jongante ak moom même bu dee day luubal day sàcc élection yi mais ñeme na jongante ak moom quoi donc mooy peut-être la différence avec d'autres pays euh, tey nag situation boobu comme le Sénégal waaw comme le Sénégal euh, nag moom moo nekk nii euh, moo dégénéré ba ci yenn dëkk yi nga xam ne dafa am ay ay seen ay étudiants gabonais lu mel ni Sénégal wala lu mel ni Canada ñu ngi leen di dégg boobu ak léegi ñu ngi kaas naan seen victoire mooy la victoire de du peuple la victoire de l'opposant mhm. buñ ko sàcc doyal nañu si la dynastie Bongo. ñu respecter choix des urnes. voilà. Mhm. <laughs> aw Diop euh, question bi sax euh, day génn Gabon lan moo xew Afrique euh, ba tey jii africains yi commencé jël seen responsabilité bu ñuy wax Gabon famille Bongo bi yàgg na fa ak yeneen dëkk yi nga xamante ne vraiment ay dynastie wala sax entre guillemets ay rois ma fa doon nekk mi mel ni dafa am benn vent boo xamante ni dafa soufflé vent bu bees ci Afrique boo xamante ni xale yi nangootuñu dictature yeeg yenn mbir yi nga xamante nañ ko yàggoon di accepté. Euh, Pamatar euh, c'est la jeunesse africaine ah qui pris le dessus mm <laughs> la jeunesse africaine tey jii ñoom ñoo gën a consciente sax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di njiit yi nekk Afrique euh, tey jii <laughs> yaa ngi ne euh, benn air bu bees la ñu ibbi mais bi muy ibbeeku ñu koy xàll Pamatar prémices yi mm <laughs> -hmm. suñu ay njiit dafa mel ni gisuñu ko woon wala dañ ci gëmoon tax ci lu wala mosuñu yaakaar ne ay doomu Afrique mhm. am nañu sañ-sañu xalaatal seen bopp jëfee seen bopp ndax ñoom ñi nga xamante ne ñoo ñoo ñu jiitu woon ci mbir yi dañ leen doon xalaatal takkal leen ay œillères di leen joxañ baaraam di leen tracer li nga xamante ne moo di seen chemin mhm. ñu jàpp ne ñoom nañ leen def noonu la ñu def la jeunesse africaine mhm. mais il y jeune de ces jeunes très conscients africains de haute facture yoo xamante ne tey dañu jug am lu ñu insuffler ces jeunes africains là yi nga xamante ne tey nag ñoom ñoo jug ne leen fin de la dynastie, oui. fin de la dictature en mmh. Afrique et fin également de l'émission de l'Hexagone. Oui. de ce fait saa suufle ñoom nag dañ doon nelaw fi mu nekk nii ña doon jayeexu ñoo daanu seen kaw ñoom ñëpp ñu tëbandoo. Mhm. mais tey ji parlant de Ali Bongo. oui Ali Bongo defoon naa ne ak li jot a xew Afrique. Mhm. ak li muy jot a gis. ak ci li nga xamante ne moo di reñu papaam mook yëpp mu yaakaar na dina mën a euh, continuer. Mhm. moom bàyyi ji moo yoroon pouvoir. moo yoroon pouvoir dem bàyyi ko euh, dem bàyyi ko fa. Mhm. tey euh, Pape Sané mi ngi koy wax. oui Ali Bongo soo ko xoolee. xool son état de santé carnet sanitaire am soo ko xoolee da nga naan kii ndax mën na jiite réew. Mhm. est-ce qu'il peut répondre au besoin des Africains de surcroît des Gabonais. les Gabonais on besoin de 109. Mm-hmm. ont besoin de se développer li ñuy gis biti réew la ñu bëgg mu am ci seen réew mais tey on a essayé le père ça n'a pas marché mm-hmm. le fils ñëw de force ça n'a pas marché Pamata mm-hmm. et tey nee naa leen Ali Bongo n'a pas comme adversaire wala comme opposant ñi nga xam te ne moo di candidat yi mu doon joxanteel mais il a comme adversaire le peuple gabonais les jeunes gabonais c'est les jeunes gabonais qui ont dit non et il doit être conscient de sa te xam na ne lii mu doxal couvre-feu oo tëj internet woo taxul mhm. ndaw yooyu dellu ginnaaw ci li nga xamante ne soobu nañ ci song nañ ci te ils sont beaucoup plus déterminés te dafa mel ni genre dérive yi soo koy def day gën a arñee ñi nga xamante ne moo di ces jeune là mhm. et le vent a euh, soufflé mënatuñ ci dellu ginnaaw mënatuñu dévier li nga xamante ne moo di vent bi côté bi nga xamante ne moo di soufflé pamata mhm. l'Afrique a besoin de se développer l'Afrique a besoin de sortir de ses carcans l'Afrique a besoin de s'affranchir de l'Hexagone comme ni ma ko waxee à l'entame ñoom la ñu jatangoon mais ndawu Afrique léegi kenn jatangu leen yeewu nañu xam nañu lu ñu bëgg et le devenir du monde Pape Matar va dépendre inéluctablement de l'Afrique et on en route vers ça mm-hmm. Mhm. en route vers euh, ça Pape Sané euh, Gabon euh, li fa nekk peut-être aussi même chose moo nekk jamono ji Cameroun moo nekkoon Sénégal parce que Sénégal ba ñu wax 1960 ba pratiquement 2000 benn régime moom moo fi nekk après si nañ doog am première alternance ak ba deuxième alternance lan moo commencé di xew ci Afrique ba li nga xamante ni ñu ngi ko doon accepté maa ngi koy laaj léegi Awa Diop Ndiaye xale yi ñoom dafa mel ni loolu nanguwutuñ ko accepté mooy que ay président yoo xam xamante ne fii nekk de 1967 ba 2019 bu ñu demee bàyyi fi seen doom de 2019 à 2023 ñoom ñuy wéyal di gérer. xam nga Gabon euh, dañu jël indépendance ñu koy tuddee euh, l'Arabie de l'Arabie de l'Afrique mooy maanaam mu nekk un pays pétrolier l'un des premier pays pétrolier en Afrique mais ba tey jii seeni alal daanaka duñ askan bi moom xamul sax nu mu demee la preuve Euh, quand tu va au Gabon bu ñu la nee dëkk bi euh, c'est le je crois que léegi ils sont au troisième rang de producteur mondial de euh, producteur africain de pétrole. Mm-hmm. ñu ne la dëkk bi euh, moo toll ci rang bi lii moo fi jëlee ci alal da nga naan déedéet nekk. Mm-hmm. alors qu'est-ce qui s'est Gabon nañu jël indépendance à l'époque France comme ni mu koy defee fépp. par le canal de la société Elf Elf boobu tey jii mooy yaayu mooy yaayu Total bi. Elf boobu. Mm-hmm. te li ma lay wax ni ay autorité gabonaise ak ay autorité congolaise ñoo wax hmm. ñu ne ñoom ba tey ji xamuñu ñaata ci pétrole lañuy génne génnee seen i waa xamuñu ko ah oui nee nañ xamuñu ko ñoom daal dañuy ñëw rek bu ñu ñëwee yóbbu bu ñu yóbboo euh, partage de dividende bu jotee ñu jox leen ay numéro compte hmm. moo xam compte euh, président bi wala compte kenn ci famille président bi wala ministre et consort hmm. ñu viré fa lañ fay viré mooy maanaam askan bi ci boppam amul dara au moment où. les alors askan bi nañ doon séddoo noonu. waaw au moment où les dirigeants sont les plus riches. Mhm. au monde ah. ñoom seen askan bokk nañ ci les plus pauvres au monde. oui loolu mooy problème mu Gabon Gabon dem nag avec cette dynastie bi ma ne la presque cinquante cinq cinquante quatre ans ñoom ñoo koy gérer euh, Gabon gisuñu ci seen bopp. Mhm. alors tey ni ko Awa waxee y' un vent xam nga dañu doon wax le printemps arabe mais balaa le printemps arabe y' avait eu d' abord euh, le le le le l' été l' été l' été l' africain. Mhm. mais peut-être que mooy avec la les conférences nationales heureusement que à l' époque beaucoup de pays avaient joué le jeu créé ay conférences nationales mooy toog waxtaan nu ñuy defee un peu euh, le truc du pouvoir comment dirais-je euh, alternance yeeg yooyu. Mhm. mais tey jii bi ñu xoolee ni que ces conférences nationales yi amoon dans les années quatre-vingt-dix daanaka liñ ci jàppoon li ñu ci retiré woon lépp lépp lépp lépp lépp comme avantage dellu si na waat léegi on est revenu aux aux états d'antan mooy bu ñu waxul sax état parti unique euh, partie état mais dañu ñëw ci eh, ay états yi nga xam ne tey daanaka c'est un clan c'est une caste c'est une famille qui gère. Mm-hmm. alors en ce moment nag africains yi sénégalais yi maliens yi particulièrement burkinabé yi ak nigérians yi xool ni que ñoom mënuñu continuer di ndóol di dépendre ci benn dëkk ba nga xam ne moom la ñuy wax France parce que lay xew Gabon principal mal bi la France toujours fooy mm-hmm. tudd rek da nga fay mm-hmm. France mm-hmm. mënuñu jàpp ni que ñoom lépp lu leen naxari ci France boobu la jógee France boobu euh, mooy dëkk bi nga xam ne euh, seeni alal seeni gàncax moom moo ëpp lu mu ci exploité mooy d'ailleurs les fameux onze accords secrets yi nga xam ne moom la ñu signé woon à l'aube des maanaam ci accords yooyu yow tey jii Pape Matar nga nekk président Sénégal. Mhm. lu génn Sénégal balaa nga koy jaay keneen France moo naan moom bëggul ba pare. ok cest à tey jii bu amoon mine de diamant fii. Mhm. pour nga dem jaay ko États-Unis même bu doon États-Unis dana la proposer cinquante mille fois le budget du Sénégal. Mhm. day fekk ni France ne la moom bëggul ba pare. donc genre accord yooyu moom la xale yi ak sama génération yi màgg màgg xool di xool ni lii c'est tellement injuste lii nag dañuy xaar nee nañu nag mënatuñu nangu léegi ay président yi nga xam ne neewaluñ fi seen askan. Mhm. France lañ fi nekkal ak seen bopp. waaw mooy li France bëgg dañ ko koy defal. Mhm. te lii seen askan bëgg duñ ko def parce que munoo toog jël sa chaise ñu ne la yaa ngi toog ci des mines de per mine de d'or mine de fer ci ay gisement de pétrole wala de gaz ba pare chaque jour ngay jël sa loxo dem di ñaan dama ne tey jii boo xoolee jëlal euh, au plan économique fan la France nekkee producteur de temps au numéro numéro un mondial. amul amul. d'accord du or du leneen mais tey jii boo demee seen réserve. ñu naan la ñoom ce sont la ils ont la plus grande réserve mondiale d'or te ñoom mosuñu am or ak yeneen ak yeneen ak yeneen. donc mm-hmm. ce sentiment là moom nañu nekk di gis ni que les choix et les suffrages yi nga xam ne moom la africains yi pour la plupart di dégager France boobu da ci am lu mu ciy jouer mooy maanaam tey bu ñu nee fii Sénégal Awa Diop nañu bëgg France dana fexe fexe fexe fexe ba Awa Diop moom du taxaw loolu nag moo nekk di law ci dëkk yi. moo jur ce fameux sentiment anti-français les Français certains qui sont dans l'administration le comprennent très bien on compris qu'il est le temps pour eux ñu xoolaat ñu revoiraat le niveau de coopération et le type de coopération bu ñu war amal Afrique ouais. mais politique yi comme ñoom euh, Afrique moom seen abreuvoir la da ngay ñëw tànk di dem rek ñoom ba léegi dañu jàpp ni que tant que ñu ngi noot yenn njiit yi amul benn problème ce que le peuple en pense n'est pas important c' est tellement vrai que soo dégloo euh, le président Emmanuel Macron sur la crise au Niger xam moom lu mu wax nee na moom tant que il est la France et d' avec Bazoum ñoom duñ fa jógee. Mm-hmm. c'est-à-dire ñoom xamuñu que <laughs> souverainement le peuple est au-dessus de Bazoum xam nañ ko sax mais intéressé wuñu leen intéressé wu leen li leen intéressé mooy que ñoom tant que am nañu un préfet bu leen di toogal di leen defal ñoom la ñu bëgg. ils vont continuer à agir et ça malheureusement malheureusement day gën di yokk euh, justement cette euh, frange euh, de revendication de jeunes revendique de, de, de jeunes yi nga xam ne qui revendiquent encore beaucoup plus d'indépendance sinon une indépendance totale mmh. Mm-hmm. indépendance totale boobu Awa Diop euh, mi ngi mel ni aussi euh, boo moytul dina am fii ci euh, Sénégal parce que lii Pape Sané wax sànq mooy que mbir yi dañ koy méngale ba sax ci Sénégal parce que ñu bëri dañuy wane que ni lii xew ci Afrique aussi du loo xamante ni dafay dafay épargner Sénégal que vent de changement boobu.